السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نجي لين نجي لين زيار بو باخا باخ تيلي سبيكتاتور اي تيلي سبيكتاتريس بو دار ديفيجن لا شين دو نو فالور نجي لين نجي لين زيار واي دي نيو بك زيار بي جيتو كو تي كيغا خامي مودي سليم منتخب البشير خلي جنرال كلوم ري جان نكو في يال ياغ لول تيما داك وير با ليپ لو مبغ ليغي سيغ ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax yaa ngi jàkkaarloog Daara a Vision la chaîne de nos valeurs yaakaar na ngay teewlu Daara ji Vision bu baax a baax. ak saa ñu ngi koy teewlu bu baax a baax di rafetlu liggéey bu baax a baax. Euh, tailleur nga suma juumul. ak saa waaw tailleur la kooku. Gora Ndiaye lan koy wax. Gora Ndiaye waaw ah. Gora Ndiaye tailleur. tey maam Cheikh xam nga ni ñu ngi jëm ci événement bu rëy ban événement la. non lii moom tabaski la ku ko ku ko wax wax. wax sañse waaye sañse waaw te yéen sañse jegee yéen a ko jagal waaw loolu moom wér na mm. loolu wér na léegi yéen ñu ngi ñu tabaski bi nag ngeen waajee naka ngeen préparé li nga xam ne moo di tabaski bi waaw tabaski bi moom ñoo ngi koy waajal nañ ci bu baax a mm-hmm. def nañ ci liñ ci war a def yëpp mm-hmm. ñoom daal instant bi ñu toll ni moom mm-hmm. am nañ xel mu dal bu baax a baax ndax xam naa ni nit moom ki ko safoo moom rek la te nit ki bàyyi ay yitteem ngir yow war ngaa bàyyi sa lépp ngir moom fexe koo bégal xolam sedd mm-hmm. nit ki jël kóoliteem confiance am def ko ci yow romb fi ñu bari ni la yow la mm-hmm. loo mën ci moom rek war nga koo mën a def. Mhm. bu baax a baax loolu day dëgg euh, yaakaar naa bu baax a baax euh, war ngaa jot ay ñëw yu bari bari bari ci ci ci événement bi. waaw ñëw yi moom macha allah bari na ci ñaata ci ñëw yi nga jël. kooku moom bu ñu ko doon lim moom du ñu fi jóge tey. <laughs> waaye lu mu gàtt gàtt wax nga ñëw jox euh, benn loo xam meew bi exalé doon lu ci mel ne 10 wala wala 20 wala 40 wala 50. <laughs> yaaram loolu moom dëgg la waaye nag li ma loon wax rek. Mhm. kéem bu ñu ko doon lim tey jii moom du ñu fi jógee. Mhm. carrément mun ma kaa wàññi daal. ëpp na loolu waaw ah, ëpp na loolu léegi yow est lu toll noonu ci ay ñëw donc mën a ñëw li fi ak tabaski bi. waaw ah, li fi des moom am na yaakaar ni dina ko mën a ñëw de. Mhm. am nañ ah, yaakaar rek am nañ yaakaar yéen tamit yéen yéen un grand problème léeg-léeg dañuy gis ñoo xam ne dañuy nekk di xuloo tey di xeex ñu nekk di jooy wala ñu triste lépp nag ci yéen lay jógee non non tax bu ñu engagé rek yéen doy ma seen engagement. non non du gisoon loolu xam nga leen di jël loo xam ne ko mën a ñëw. du gisoon loolu lay am ñoo xam ne dañuy yéex a ñëw waa te dañu di bokk si kër gi. waaw ku yéex a ñëw ngeen ngeen baare. waaw non non am na loo xam ne mën leen a baare faaw da nga leen jël. Hmm. ndax doo leen baare day demee waaw doo leen baare day demee neen waaw moo tax faaw da nga koy jël quoi. Hmm. ah jéem. waaw loolu am na xam nga xam nga lu ñëpp bëgg faaw mu jafe léeg-léeg mënta ñàkk day am lu ñëpp bëgg faaw day jafe léeg-léeg lu mënta ñàkk day amit loolu day am loolu rek mooy waral tardement bi waaye bu ñu sañoon kenn ku ne yéen ji nga am ba ñu ci ñëw ba ñu ci ñun ñi danañ defal lu sedd sa xol ba mer du ci am ngay waxtaan ak moom rek waxtaan ak moom rek defal da ngay waxtaan ak moom rek léegi loolu tamit ah, la rek hmm. ban koy jël a hmm. day dem ba sa biir nag mu demee neneen noo xam ne yàlla sama moo koy dogal hmm. waaw loolu lay doon euh, léeg léeg mu ñëw di jël si ñoom ma ngeen ko ñëw bi daanaka dagg nañ ko wala pare na wala nang te fekk na sax yow fàtte nga fa nga teg ñëw bi waaw loolu moom da ci am léeg léeg sax ngay wax ñu la waxi waxi teer nga may wax lu waral lu waaw loolu moom da ci am ndax eh, léeg léeg ngay wax ak ñu maan loolu moom waxi teer la rek mhm. waxi teer ndax eh, li ñaan nag eh, bari bokkut mhm. bari bokkut day am mhm. am na ci ñoo xam lu ñu la wax moom boo ko dee rek moo koy dindi. te règle boo gis am exception. xam nga tabaski lañ jëm di événement bu rëy. nga xam ne daanaka ci lañ ëpp lu ñuy ñawloo. waaw baax euh, Magal Touba. Hmm. léegi euh, yan yan genre mode la nit di choisir. isaan yi moom jigéen ñi. waaw isaan yi isaan yi moom jigéen ñi moom fi doon ñu nekk moom mën naa la robe lañ gën a choisir quoi. robe taille man waaw robe taille man hmm. waaw rob tayman comme yi ni ma wékk nii mm. lu si bari bari bari mën naa la xam moom tabaski lu si bari bari moom la ni ñëw daal mm-hmm. baas day am toog tey baas <laughs> toog tey baas moom day am mm-hmm. day am am na fi xam naa bii sax moom lay doon mm, moom moom lay doon moom mooy bii tiim ci bi rek mm-hmm. yaa ma gën a xam fi may waxee <laughs> loolu lay doon da si am waa ak yeneen yi nga xamante ne nii ay ay rob bi maam booy la ñuy ñëw ak ay ay minigramme bu buyu gàtt yooyu. Mhm. yi ànd ak zipp yooyu. Mhm. yaa ma gën a xam rek. képp côté ko mu rafet ni jigéen ñi di ko sol daal. xaw ma xam yooyu daa ngi ñëw yu mel noonu ñun moom xam nga da ngay maasal def kenn ku ne moom sa bëgg-bëgg bi nga am ba ñëw. Mhm. boo ñëwee danañ defal li nga bëgg rek. ndax xam nga mën a ñëw moom dëgg-dëgg. Mhm. mooy nit ki nga defal ko lu sedd xol. Mhm. waaw du fekkee am lum ñaw nit nit day ñëw indi ñaw du am lum ñaw kaar ma danaa la ñawal ma rafet yow yaa xam li jekk si moom rek nga defal ko. yéen lan ngeen jàpp ah, yi nii mhm. isaan yi moom li dàq si ñaw moom bari na mais isaan yi mën naa la ñaw yu simple comme ça comme nii. moo ëpp daal ay mbaséeri nga ñaw ko simple noonu xam la doo ko exactement moom ngeen di ñaw. waaw loolu day am loolu day am xam nga nit ki day jël day jël tiseem ñëw suwaa ci dara ni lii la ci bëgg mm-hmm. ñëw wax la ko mm-hmm. nga xool tise bi xam ne lii du ànd ak moom nga génne ko ci ni ko nangam la rafet mm-hmm. defal ko loolu moom mooy mooy mooy daamine rek mooy daamine comme jële ne moo koy def machine ba li ci ginnaaw loolu mooy 217 machine simple yi moom mooy comme ñawu simple yi après nga wutu décoration rek. génne ko lu mel ni gàncax gi mu toll. Euh, est-ce góor ñi wala jigéen danañu choisir li nga xam ne moo di ñawu simple. est-ce que danañu danañu waaw xam nga loolu tamit fii dañoo na bëgg lu rëy tamit. waaw loolu day am. Mhm. xaw na ñoo bëgg lu rëy mais li ñu naan actualité day am. Mhm. actualité day am waaw kay. xam nga temps bi passé woon. Mhm. boobu 217 xewoon na. mais période bi ñu toll moom. simple moo gën a bari. ay ay ay. simple moo gën a bari waaw waaw kay yooyu yooyu moom am na mais moom ñun moom egg ci cadre boobu ñu toll wax nga ne ay toq tey baas gën a choisir ay ay rob yu mel noonu ah, léegi ñi nag waaw góor ñi moom dangay gis koo xamante ni day def gramme ba mu baax mm-hmm, wala mu def rob ba boo xam ne day wàcc ba ci suuf wala mu def demi suuf bu baax waaw mooy bu bu sew boobu wàcc ba ci suuf rek nga xam du am ay ay ay ay ay ay ak yooyu mm-hmm. toujours waa kër borom dendee moom mm-hmm. ku ko déggutit war nga koo mën a xam waaw filiation Couture waa kër Sëñ Ndende. waa kër Borom Ndende waa kër Sëñ Mandumbe. waa kër Borom Ndende mooy Sëñ Mandumbe. waaw léegi joxoo sa numéro téléphone. waaw waaw léegi sama sama numéro moom da ngay def 77 191 59 37. baa nga def 76 484. 28 98. loolu mooy numéro yi waaw. waaw yaa ne am na yeneen a tàggatoo ak mbokk yi kay loolu moom. da na nga fexe waaw waaw loolu da ci am solo ñoo ngi leen di sant bu baax a baax. Mhm. di leen ñaari sëñ Tuubaa jàpp leen baax a baax liggéey bi am na solo lool. Mhm. ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax kontaan nañ ci suñ xol sedd na bu baax di leen ñaanal sëñ yokk leen bu baax a baax ba li ngeen ci mébét lépp ngeen am ko ba am ci lu kawe seen jort fépp fu ñu koy dégg rek liggéey bi yàlla leen dégg fu ko foo ko barke sëñ Tuubaa xasaa yi di ca kanam <laughs> <laughs> sant nañu baax a baax suñu xol sedd na ñu ngi leen di sant baax a baax ok téléspectateur et bu Daara J Vision la chaîne de valeur ngeen jàkkaarlu yaakaar naa xam ngeen ko bu baax a baax ndax def na présentation léegi dañ dem ci keneen ndax xam ngeen tey moom benn nekk fi am na ci yeen yu fi nekkaat ñu dem ci ñeneen xool ba xam ñoom it nan la naka la ñuy waajee nga xam ne mooy nekk Touba waaw Touba la nekk ancien gare bu njëkk waaw ñoo leen di nuyu baax leen sant. sama numéro téléphone 76 586 11 14. 76 586 11 14. lii daal la góor ñaanal naan ku a nekk. bu bëgg la fi daal doo ñëwee fi am naan yaakaar di ko am du neex yàlla.